Panorama TV la chaîne du peuple. waaw macha allah rabbi yaakaar naa ne kii ñu toogal moom kenn dootu ko présenté benn yoon ci milieu bi nga xamante ni mooy milieu théâtre théâtre moom suñu ko waxee mooy théâtre sur scène nekk li nga xamante ni moom art macha allah te Ardo Nguer di jàmbaar lool Ardo ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax ñu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi lay seetaan aja maa ngi lay fay bu baax a baax a baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ñëpp ñu leen di nuyu rawatina internet yi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw di ñu intéressé nii ku ci mel ni Go TV euh, ak ban ah Panorama TV ah, ak euh, ñi si teew ñëpp daal maa ngi leen di nuyu baax di leen ziar di wax ni kontaan naa ci leen lu bare bare Euh, ma fas ma teg dafa bi ba sama njaboot gi waaw xam nga sama diggante ko Arcos Guédiawaye dafa yàgg du tey te même bu dul dara ñun ay artistes comédien lañ donc bu aar xewlee woote li ñu war a def mooy dem wuy ji waaw ñu war a dem donte waaw yaram bi naqari woon na mais ñi ngi sant yàlla baax a baax alhamdulilah waaw tey ñi ñëw euh, fas yéene teewal leen teew en tant que artiste comédien teew en tant que koo xamante ni waa Arco Guédiawaye en dehors de art bi ay mbokk lañu ay xarit lañu ay am di jàmm lañu lépp lañu tey ñi ñëw teewal leen ci li nga xamante ni moom moo di seen bis ndax nit amul lu dul bisam te nit ku ko xeebal bisam xeebal nga ko léppam te ñu nag comme ci culture la ñuy yëngu culture li ñu mën a def mooy ñëw wuy si culture moo tax tey ñëw ci festival bi rawatina nag euh, ñu tuddee ko festival gér yi gér yi nag samay français bariwul mais yaakaar naa ne bokk na ci wér-gu-yaram waaw te wér-gu-yaram actuellement ñëpp ko soxla ñu woote festival boo xam ne dañu ñëw leen festival wér yaakaar naa ne ku bëgg wér war ngaa mën a ñëw teew. loolu tey noo gisee art ci Sénégal fii artistes yi ndax ñu ngi ak seen cër seen gëdd wala. waaw xam nga nag art bi fii moom euh, cër bi ak wàccuwaay bi ak gëdd bi. des na même bu dee am na fi tamit des na wala des na lu bare bare bare bare ndax gëdd ga ca war joxaguñu ko xàmmee ga ca war joxaguñ ñu ko la war ci ñun defaguñ ko parce que tey ji tey la preuve tey dégg nga bi kii di commencé mi ngi wax ni mi ngi am ñu muy gërëm ni bu du woon ak ñoom bés bi dana ñaaw kon donc man jàpp naa ni tey jii muy li nga xamante mooy autorité yi yi nga xam ne ñoo ñu war a jàppale bu ñu jàppale woon kon du ñu dem ba nga xamante ni ñenn ci ay nit ci civil yi ñoo ne ci koñ bi di jàppale nit ñi bañ ñu naan boo ci jàpp woon festival bi du baax kon bu ñu demee ba naan boo ci ay koñ ay jigéen yu ne ci koñ ñu ne bu ñu ci jàppale woon lii du baax kon jàppale gi ñu war a jàppale des na surtout li nga xam mooy état bi. ndax am na dëkk yoo xamante ne tey jii boo fa demoon tey artiste dañuy fayeeku salaire comme ni ngay liggéey di fayeeku salaire mais tey loolu amul or li nga am sax yow moo nekk ci mairie bi. ay subvention yoo xam ne dañ koy dégager muy ay fonds pour nga jot ci problème la tey nga xewle ministre de la culture balaa mu lay jàppale problème la ah? bi balaa mu lay jàppale problème bañ nañ ko ba li ñu waroon a développé sax mu nekk ci euh, fu mel ni ay ay SODAV wala feneen nga xam ne day jàppale artiste amu fa amu fa ñoom da ngay dem sax ñu la ko ñu leen kenn reconnaître leen kenn leen lii amu fi wala léegi lii amu fi même carte yi nga yor nii sax war ay droit de voyage ay droit de nangam ba léegi dañ koy wax ni mais génneeguñu fonds yooyu amagul kon donc gëdd bi ñu war a jox dafa des te fii ñun ñooy yor pharmacie boo xamante nit ki mooy ñëw feebar jël garabam naan dem ñibbi dem tëddi te du fay dara. waaw euh, ñuy ñu ngi lay dégg instant bi ban message ngay lancé comme ça pour ñu dimbale la. waaw li ma leen di lancé mooy euh, maanaam yalwaanuñu nag. du message comme ku yelwaan ni daw si leen dimbali leen ñoo ngi dee déedéet maanaam nañ ñu dimbali ci li ñu moom ñi di ñu ko jox ni ñu yelloo ñu fexe ko dégager mu génn artistes di ko am di ko jot ba képp ku xewle mën a def sa xew ci normal doo ci am benn problème ndax boo xoolee ñaari fan ñaari fan nga dajale fi mbooloo mu toll ni nga xam ne ëpp nañu 500 personnes nga dajale leen bëgg leen di leen añal di leen reeral di leen ndékkil te amoo ku la jàppale dafay metti te artistes yi nee naa la culture bi moo téye réew mi moo téye lépp kon nañ leen di nemmeeku nañ leen di fàttaliku di leen ngees bàyyi ba jaan dem na nga topp ci wati bi di dóor am na lu ko dañuy toog fii duñ jàppale artiste bu artiste jee ñu ñëw di ngand ngandul di rëy grand mbubb di rëy enveloppe di rëyu nag loolu amul sens nit ki boo koy jàppalee da nga koy jàppale ba muy dund bàyyi ba mu dee nga tuddee ko monument amul sens ma nga ca àllaaxira gisul monument bi monument bi tuddee ko ko léegi bi muy dund bi di ko gis ay mbokkam di ko gis la koy dimbalee dimbalee ko léegi bi bi muy dund mais bu dee nga dimbale ko ay mbokkam a koy lekk mu jeex ñu ñëwoon ci dëj ba lekk ko mu jeex du am benn njariñ kon amul sens jaajëfal naa leen Panorama TV, la chaîne du peuple.